Aujourd'hui, nous dañu nek di def euh, célébration euh, trois ans du Nano Crédit mu nek aussi une occasion pour ñun dajalé lu ñuy tuddee fétière la fétière départementale des fédérations fétière yi nag dañ lañ dajalé pour def pencho ñom ñoo euh, wane sen bébét rencontrer délégué général ñu profito ci nor ak ñom célébrer aussi trois ans du Nano Crédit instant bi nii ñu ngi jàkkaarloog délégué général di wax seen mbégte ci produit bi mais aussi di wax les points d'amélioration yu ñu war a mën a def ci produit bi pour que liggéey bi gën a yomb ci ñoom aussi ñun tamit euh, ñuy dëkk di liggéey produit nano crédit pour que ñoom tamit lépp li ñuy xaar ci produit bi rek DER daf lu ci war pour yombalal lañ liggéey bi waaw loolu dëgg la euh, euh, luy wàllu fay bi euh, fédération yi ak yi chaque jour ci lañuy taxaw donc ñun luñ def mooy mettre lañ en rapport avec préfet pour chaque département pour que ñu appuyer ci recouvrement bi ci pay euh mais loolu duñ ci duñ ci duñ ci arrêter di ci liggéey parce que loolu tamit mom moy té produit bi moy tax produit bi fii ak 10 ans fii ak 20 ans nous avons di continuer di wax ci crédit mais sensibilisation bi moo solo parce que mu nekk DER mu nekk faîtières mu fédération tant que nous continuons de sensibiliser les bénéficiaires si ci lu la ñu warloo ci nanu crédit nous boobaa fay bi dina gën a euh, euh, du tay euh, améliorer produit bi di ko parce que. boo xoolee ba ci biir euh, chaque jour dañuy nekk di déglu euh, ñu ñuy liggéeyal mooy fédération yi mooy faîtières yi bu ñu waxee ne bénéficiaires yi pour que seen fay gën a yembari da nga ñuy yokk durée yi da nga ñuy yokk euh, da nga ñuy wàññi intérêt yi ainsi de suite loolu dañ koy jël en compte di ci liggéey mais duñ yem ci financement parce que DER dafay former DER dafay former pour que nit ñu mën a téye xaalis bi utiliser ko pour mën a développer seeni activité euh, mais aussi ñu ngi liggéey ak euh, mi pour mettre en place assurance maladie parce que tamit kuy liggéey dafa war a am lu koy euh, jàppale ci bu feebaree mu faju te loolu tamit ñu ngi ci liggéey pour que bénéficiaire nano crédit yi incha allah ci lu yàggul ñu mën ci bénéficier te du duñu tàyyi nag di yeneen produit comme épargne dans le cadre du du, du dispositif de nanocrédit avec des partenaires nous mën proposer des produits d'épargne ci am satisfaction parce que actuellement euh, bénéficiaire nanoï déjà euh, ñu ci 500 000 parce que le moyen plafond nano yi léegi accéder sur des montants de 1 million De bëri na ñoo accéder pour dire rek DER yemul ci ay nano crédit passage la donc on l'appelle parcours autonomisation dañ lañ bëgg yop ñu nekk ci euh, guichet autonomisation mëna damal sen bop mais même ci euh, guichet bobu noonu duñ ca yem buñ démé ba am ay projet DER taxaw na pour jappalé lañ parce que xam nañ sen euh, demb xam nañ sen mën fay bor xam nañ sen djup donc DER lu mu bëgg rek moy ku am ambition dès yaa ngi am ambition rek DER dafay taxaw pour jàppale la ci financement jàppale la ci accompagnement boole la ak ay partenaires. waaw te aussi ci résultat yi euh, romb nañ 400000 crédits yi donc loolu takku la romb nañ 38 milliards de financement romb nañ 155000 bénéficiaires mu nekk ay lim yoo xam ne lu am solo la te liggéey bi euh, pareegul day soog a tàmbali ndax lu ci kanam. moo gën a yaatu ñuy toog di xaar ñoo gën a yaatu euh, ñu ñaan yàlla rek financement bi gën a mais produit bu am bu ñu am satisfaction la DER est fier du nanocrédit les acteurs aussi sont fiers du nanocrédit